mbokk yi kenkayar yi maam lamp nekk ci route de Darou Mourti jàkkaarloo kër Serigne Sidi Mokhtar ci wetu station bi barab bii boo fi ak see jàppal ni lépp a yemb bi ngeen mën ci bëgg si wàllub ciment dama ni ciment ba gën am qualité waaye nag bu dee wàllub fer fer bi ñëpp di wër moo ngi fii béton nag moom c'est la meilleure qualité ah waa kenkayar yi maam lamp Fall ñoo leen yembal lépp luy matériel de construction si wàllub métallique menuiserie yi maçonnerie plomberie

asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi safoo seetaan suñu télévision Rafah TV ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen si ziar di baalu àq bu baax a baax te nag ñu ñëwaat ak ci seen naafila bis bi suñu ñaar fukkeelu guddi ak juróom-ñeent ñeenti rakkan la rakkan bu nekk fatiha benn yoon wattiini juróomi yoon qul yaa ayyuhal kaafiruuna juróomi yoon qul huwallaahu ahad juróomi yoon ñu baamtu ko ñeenti rakkan la rakkan bu nekk fatiha benn yoon wattiini juróomi yoon qul yaa ayyuhal juróomi yoon qul huwallaahu ahad juróomi yoon naafile gi nag ñu ngi ko toxalee ci xuratul ayni téereb sëriñ Chouaïbou bu Mbàkke xaadimu rasul mbokk yi Rafah TV moo leen di ñaanal kooru jàmm ba suba ak jàmm incha allah mbokk yi kenkayer yi maam lamp nekk ci route de Darou Mourti jàkkaarloo kër Serigne Sidi Mokhtar wetu station bi barab bii boo fi ak jàppal ni lépp a yemb bi ngeen mën ci bëgg si wàllub ciment dama ni ciment ba gën am qualité waaye nag bu dee wàllub fer fer bi ñëpp di wër moo ngi fii béton nag moom c'est la meilleure qualité ah waa kenkayer yi maam lamp Fall ñoo leen yembal lépp luy matériel de construction ci wàllub métallique menuiserie ébénisme maçonnerie plomberie ni bu ngeen accès fii fekk fii lépp lu ngeen di wut te nag dafay doon qualité ba gën ah mbokk gaawal gaaw woote gaaw si 33 977 38 69 wala si 77 572 73 57 voilà si 76 516 06 16 ak kenka yëri mam lamp jaaxle moo fi jeex